مولاي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير Diva One TV La lumière de la Tijania عونك يا معين وبك نستعين بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في أرض ولا في سماء وسمعني ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المرسلين مرعة ذات الله ومشهد صفات الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا وسيدنا ووسيلتنا إلى ربنا أبي أباس أحمد التجاني الشريف رضي الله تعالى عنه وعن جميع خلفائه رضوان الله عليهم أجمعين ونفعنا الله ببركاتهم آمين مبكي السنغال مبكي جلتي مبكي جاسبرابي مولم أمة الإسلامية بيب فتبارك الله كندي قال الخليفة عام لطائف التجانية دي سيد أبو بكر سي منصور ak mbolem rakam yu tel di Seydi Ahmed si di Pape Malick si di Haji Malick bu Alaaji Abdou Aziz radiallahu taala anhu bu sëñ Mbay si Abdou ak seen rakk yëpp ak seen njaboot yëpp ak seen taaw bu tedd bi di Cheikh Seydi Mouhamadou Mansour si Jamil ah ñu ngi leen di dëgtal li nga xam ni du fi gan li sam Pape Mansour radiallahu taala daan wax ni la woon woon ak ñawoon macha allah lii li li daan xew moo dellu siwaat ñu dëgmal ko muy guddi juddug Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dan ko def nak ki aduna bi yeb ma sha allah euh ala la wate rawatina Tiwaawan mi nga xamni ma sha allah fa la ko sayyid hashim malik radiyallahu taala anhu dan defé àndante ko mag ñimu mu ko àndanteeloon dan ko dundal di dundal di magal juddu Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu jóge fi tam bay fi mag ñu bax ñu fi teddon ñu teddi fi nekkon macha allah di Seydi Aboubacar si radiallahu taala anhu di maam Haaj Mansour si di Haaj Abdou Aziz si ridwanullahi alayhim ajmain wa nafaana allah bi barakatihim amin ah ñuy bàyyi koo fi bàyyi fi seen njaboot yu tel di di Seydi di sëñ Mansour si borom daara ji radiallahu taala anhu di Seydi Cheikh Ahmed Tidiane si al Maktoum radiallahu taala anhu di Seydi Abdou Aziz si al amin fa tabarakallahu radiallahu taala anhu ak seen ak kilifa yi nga xam ne nag fa tabarakallahu moom lañ fi bàyyi ñu nekk fi nag yor service bi di ko doxal jiital ci suñu jiitu suñu waajur Seydou Aboubacar Sy Mansour macha allah di ci li ko jiitu nag eh, gàmm gi laata ñëw Seydi Hadji Malick na mu ko daan doxale bu weer bi tero nga xam ni eh, tubaarkalla ci weeru gàmm eh, fukki fan ak ñaar mooy guddi juddu gi macha allah fukki fan yëpp nag dafa daan jël téere bu màgg boobu te te te te bindkat bu mag boobu di Seyd Mouhamadou Bousiriyu radiallahu taala anhu eh, fa tabaraka taalifoon di burdu moom la jël muy fukki bunt bés bu nekk mu jàng benn bunt bu fukki fan yi mat bu fukki fan yi matee fukki fan yeeg benn macha allah ñu noppalu ci fukki fan beeg ñaar nag ñu dugg ci miimii bi di xilaas zahab fi sirati xayri arab Seydi Hajji Malick taalif ko te li nga xam ni siyaasa Seydi Hajji Malick ak politique bi nga xam ni luy rafetal da koy rafetal mu xam ni kii bind na lu rëy ci Seydina Muhammad salaam wax ci wax ju rëy mu jël téereem boobu ni kon nañ ko burde te xilaas zahab bi bàyyi ba bésu euh, judd gi mu ñu mu gàmmoo ko fa tabarakallahu mu ko daan firi mu jóge fi mag ñu baax ñi daan ko firi ba suñu joon yàlla tey macha allah len nag mu nekk ci jamono ju xaw a doy waar ndax macha allah Euh, ci atum ren bi di 2017 ci la ñu boolenoo ñàkkandoo ñaari xalifa di Seyd Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum di Seyd Abdou Aziz Sy Al Amin macha allah mu nekkoon ci ñëpp xamoon leen ci bés boobu ni ko ni ko fonke woon ak taxawaay bi ñu ci amoon macha allah yàlla dogal nag ci benn benn benn at mi yàlla jëlandoo leen ah loolu nag macha allah ah, ndogalu yàlla moom julli nangu ko rek la Seydi Hadji Malick waxoon radiyallahu taala anhu ala farda maa yaqdi ilaahu bi mulkihi fa fii ridaaman bil mutii yusibu kon nag lu lépp lu borom bi d'accord ci nguuram gi nañ ko nangu te boo ko nangooy làq na ngërëmal yàlla kon nag fa tabarakallahu a ah loolu ñu nangu ko kilifa yi nangu ko ah ba tey nag li fi nekkoon ba tey moo fi nekk dara jógu fi dara beesu fi dara màggetu fi fa tabarakallahu waaye nag macha allah sunu wayjur bu tedd bi di Seydou Aboubacar Sy Mansour ah ci ndigalam ak ci taxawaayam ak njaboot gi nga xam ne ñoon topp ci ginnaawam ñu fas yéene incha allahu taala suñ ci yàlla yóbboog jàmm ñu taxawal guddik Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni ko mag ñi daan defee ci Seydi Haaji Malick radiyallahu taala ak njabootam boobu ba léegi nag looloo fi nekk macha allah burdi bi nga xam ne nag moom la ñuy fas yéene dëgmal ci bu weer bi teroo incha allah taala eh, ci at yi passé ci sunu ndigalu sunu waajur ba Seydi Abdou Aziz Al Amin ginnaaw bu mu ci waxtaan ay kilifaam ba pare ci la ñu initié woon ay bourde populaire de commission de décentralisation bi nga xam ni ñooy saytu mbir moomu nag macha allah fexe ba tasaare burdu bi mu mu mu tasaare ci réew mi yëpp ba fu ñu fu fu fu ñu fu foo tollu ci Sénégal dégg Mawlaaya salli wasal bi di jolli macha allah ba te muy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam boo xam ni macha allah lu lu lu ne mën na ko defar ci réew te wax dëgg yàlla ah, li nga xam ni mooy. magal juddug Seydina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam nekk na lu rëy loo xam ne lii Seydi Hadji mag ñi fàggul nañu ko macha allah ndax li yàlla wax ci alxuraan ni uzkuru nihmatullahi aleykum na ngeen fàttaliku xéewal yi leen yàlla defal te yaakaar ab jullit munu am xéewal bu gën a màgg seyduna muhammad sallallahu alayhi wasallam kon bu yàlla ne uskuro nihmatullahi aleykum fàttaliku la xéewal yi ma leen yi leen yàlla defal yaakaar naa kon li ci jiitu mooy seyduna muhammad sallallahu alayhi wasallam sallam moo tax mag ñi nag macha allah ci xaar ci ndigal loolu ñu daal di woote ni bis bu Seydina Muhammad bi bisu juddoom bu bu ñëwee yaakaar naa ñu ñëpp nañu bokk daje yi Tiwaawan ci ëttu Seydi Haaji Maalik radiyallaahu taala anhu di fa màggal ak di fa di fa wone suñu cofeel ak di bekk ci sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam namu ko waxon ci khilaf zahab bi bokku na ci mandar mandargay cofeel sop sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam tahzimuhu waltizazu hina tazkuruhu hubbul qur'an wa lahu karami bokku na ci mandar gay sop sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam tahzimuhu moy magal ko waltizazu nag ak di bekk waltisaasu ak ti kontaan xëy na taskuru xasaa yoo xam ne tudd nañu turu Seydina Muhammad salaa sallam sa xol sedd nga bëgg ca ba ca des mooy xubbul Qur'aan nga bëgg alxuraan wa asxaabu lahu kan ak saxaabaam yi nga xam ne ñooy boroomi teraanga kon nag fa tabaarakallaahu ci ndigal loolu ak taxawaay boobu kilifa yi jox ñu ko ñu war cee dundal guddi googu waaye laatuñ ci egg nag ñu décentraliser bourde bi nga xam ne dootu yem Tivaouane nga xam ne Sénégal yëpp dafa tasaaroo fu nekk ñu ñu ñu ñu ko fay defee ba tax na kon incha allah au niveau de la région du cap nag ah ñu jël nag initiative di ko def bu bi teroo ba Tivaouane bourde ba pare nag ci lay waa euh, région du Cap-Vert di jël seen bas ren nag ñu ngi ko jàpp defe naa ci le 22 novembre bii di ñëw incha allahu taala ci li ñu fas yéene à la place de l'Obélisque def bourde populaire bi nga xam ni mooy bu région de Dakar bu département Dakar itam macha allah daan lañ ko def ci ndigalu kilifa yi xam ni départemental ak bu régional mu am département régional bi moom la ñuy def le 22 waaye bu départemental bi incha allahu taala ñu ngi koy def le 25 décembre fii ci Fass ci kër Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha radiallahu taala anhu kon nag macha allah. mbir bés la boo xam ne bés bu rëy la ci région du Cap Vert bés bu rëy la ci àdduna bi yëpp ndax bés bés bu rëy la ci ummatu islamiye bi macha allah kon nag ñu ngi koy yëgal mbooleem ki nga xam ne yaa ngi dëkk région du Cap te yaakaar kër Seydi Hadji Malick tey jullit te sopp Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam sax ak ak foo mën a bokk boo lay soppee rek allah ñi la ciy woo fa tabarakallahu bés bi nag euh, ni ko ab baaxoo di defee mooy ginnaaw sax lañ koy def bu ñuy jëlee tàkkusaan bu ñu day ci place ba bu jël tàkkusaan ba pare ah yenn nag ci kilifa yi dinañ ci waxtaan suñu paree nag ah, macha allah balaay timis ñu fexe ba woy burdi bi mu jeex ndax ñu bare dañuy dañuy dem di di burdi seen jàkk yi te bëgguñu jël seen temps ba ñoom ñu ratte seen burdi yi kon nag su timis xaasee jot rek da danañ tas mbir mi macha allah ku ci nekk balaay gee nga dellu sa sa jàkk burdi ya nga fa daan jiite wala ya nga fa daan taxawee nga mën koo taxawee na sëñ Moussa daan wax rek ku jur yërëm ku jënd sakkanal macha allah looloo fi nekk kon nag mbir mi bëgg nañ ko def euh, waaye nag bëgguñu aussi gàllankoor it li nga xam ne moom la moom la ñenn ñi di doxal kon nag bu 5 heures ñu ñëpp ñu daje place de l'Obélisque macha allah fas yéene def bourde populaire bi nga xam ni ci dund sëñ al al sëñ Abdou Aziz Al Amin mu joxoon ñu ci ndigal ñu koy doon def waa décen waa décentralisation di ko def ci jiitalu Souleymane Bili Pay macha allah euh, di ko di di ko dundal. Euh, at yi yëpp at mu jot ñu daje obélisque ba def ko fa ren it macha allah ah teel a teel a waalo gën a aay donte le kilifa yi ko initié woon ñoo ñëpp yàlla dogal na wan walbatiku nañu wan ñu ginnaaw jiituñu ah fa tabarakallahu waaye service bi moom mi ngi fi ba tey te dara jógu fi kon nag seen martaba ak seen mbaax ak seen ci seen ci ci seen ci seen ndigal yaakaar naa incha allah buñ ci góor góorloo rek yàlla mën nañ ci defal sutura ba ñu ko bëggee yàlla defal ñu ko kon nag ñu ngi koy yëgal Sénégal yëpp ñu ngi koy yëgal àdduna bi yëpp ñu ngi koy yëgal diaspora bi yëpp macha allah képp koo xam ni kii jullit nga te di soppey Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam même boo dul jullit sax incha allah taala bés bi bés bu rëy la boo xam ni bii li ci aju ci yiw li ci aju ci xéewal li ci aju ci ay ci ay ngëneel kenn xamul nu mu toll fa allah ndax yalla la mu wax ni laysa aleykum junaaxun an tabtaxu fadlan min rabbikum amul benn bàkkaar bu ñu leen togg feeg yéen ngi sàkku ngënal ci seen borom muy wax ni wa isa qudiyati fantashiru fil ardi bu fekkee da ngeen julli jamaa ba sëlmal tasaaroo leen ci kaw suuf waaye waxu ngeen tasaaroo dem ci ndaw rabbin ba wala nga dem ci uh, damyeekaay ba wala ngeen dem ca uh, làmb ja uh, wabtaxu min fadlillahi la wax lu ba ci gën waskurullaha kasiran na ngeen tudd yàlla fu ngeen toll la allakum tuflixuuna kon amaa ñu ngeen texe kon nag su ko defee fa tabarakallahu loolu mooy message bi nga xam ni macha allah mag ñi moom la ñu jox daan suñu waajur daan ko fi daan ko joxe su bis bi mosaan jege si mu koy dëgtal waa Sénégal macha allah kon nag ci ndigal kilifa yi ah ñi ngi ñaan yàlla yàlla yóbbu mu ci bis ba ak jàmm yàlla defal ñu fi najaax dafa ñu tawféex dafa ñu taysiir ba nañ ko daan defee ci dundu mag ñi yàlla yàlla na fi gën a jëm kanam yàlla na fa gën a kawe te Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha radiyallahu taala anhu moo daan wax ni kër gi lu ñu sos ci dëgg lañ ko sos lu ñu sos ci dëgg nag njëlbee nga defee sew waaye mujj ko defee rëy dama ko daan joxe comme misaal mooy ci gàmmu Tiwaawan njëlbeenu xilaafa sëñ Babacar Si radiyallahu taala anhu mbooloo mi daaw fees jàkk ji waaye léegi nag mbir mi màgg na ba mbooloo mi xajatul Tiwaawan kon nag noonu mu meloon ci gàmmu Tiwaawan bour di populaire yi ñu initié ci ndigalu kilifa yi te ñu sos ko ci dëgg itam incha allah taala am nañu njort gu rafet ni incha allah dana dem ba ah, ah, Sénégal yëpp di fi daje ah, Ndakaar yëpp di fi daje région du Cap Vert yëpp di fi collectivité lépp yëpp di fi daje di di di di di di di di feeñal sunu cofeel ak téere boobu nga xam ni la Mouhamadou Boussirou liggéey radiallahu taala anhu ci burdu bi nga xam ni allah dañuy dellu saas xel yëpp amin tazakurin jiraanin bi zi salami mazaj tadam an jaramil muxlatin bi dami tabaarakallaahu yàlla na ci yàlla yóbbu ak jàmm yàlla na yàlla may ñu fekke ak tal ko macha allah te ni ñu ko defee ren yàlla na yàlla may ñu defe teew ko déwal te déwal dàqal ñu ren macha allah yàlla na yàlla defal lépp ñu muy mu muy xéewal lépp di yiw ak tiyaa bu ci yaakaar yàlla na ko yàlla def te jamono yi ñu toll nga xam ni ay nit a ngi toog di def ay njombe nekk ci àdduna bi di def ay ay ay di ko di ko wootee lislaam ak di di ko tuddee turu lislaam kon nañu am ñu am fulla bu toll nii ah am ñu nekkee jamono ji di di dayaloo di wane suñu cofeel ci Seydina Muhammad salaa salaam xam ne ñun violence taxu ñoo jóg xam ne ñun rayante taxu ñoo jóg xam ne lislaam diine jàmm la lislaam diine diine xam-xam la diine fa tabarakallahu jàppalante la yaa ayyuhan naas inaa xalaqnaakum min zakarin wa unsa wa jaalnaakum shuuban wa qabaila ngir lan li taarafu inna akramakum inda allahi asxaakum kon nag yàlla ba mu ñu bindee ñu nekk ci jóge bàyyeekoo ci ku góor ak ku jigéen daf ñu def ñu ay tribu def ñu ay peuple nee na loolu ma def wuute boobu ma leen wuutale ngeen ñi ngeen nekk ci ay ngeen bokk nekk ay race yu wuute nekk nit ñu weex ñi nekk nit ñu xonq ñi nekk nit ñu ñuul fa tabaarakallaahu ci benn réew ma wuutale la si ay làkk ñii di tukulóor ñii di séeréer ñii di bambara ñii di saraxule fa tabaarakallaahu nee na loolu lépp nag wuute googu ma leen ak différence boobu ma def ci seen diggante li taarafu ngir ngeen xamante nak ma sha allah nee ki gën tedd ci yéen nag inna akramakum indallahi atkhakum moy mooy ki ki gën ragal yàlla kon ki wote wul violence wote wootewul sànni bomb wul def ay attentat suicide fa tabarakallah limu wote moy julli ci ànd nek ben tapé xol yi fa tabarakallah jàmmook ñi nga xamni ñom lañu la ñu bokkulul diina te dëkk te bokku ñom aduna bi ndax yàlla bu mu bu mu waxe waxu waxul julit waxul waxul ken dafa ni wala khat karamna bani adama kon telal nañu borom doomu aadama te doomu aadama képp ku ku ku bindoo ci doomu aadama rek doomu aad ci ci ci nga bokk kon fa tabarakallahu loolu mooy message bi ñu ngi koy sant ñu ngi nuyu kilifa leen jéggalu di yàlla bis ba yàlla ci yóbbu yàlla jubboog jàmm te yàlla defal leen wér doole leen kattan ba lépp lu fi mag ñi bàyyi woon mu mu teeñal leen yàlla teeñal leen ko jàppale leen yan bi ba fi ko bëgg ñu eggale ko fa da sëñ Babacar Sy radiyallahu wax ni ko tungoo mu sut la kon nag kii fi nekk tey di sëñ Babacar Sy Mansour euh, fa tabarakallahu wuut fi mag kon ñoo ñëpp dañ koo tungoom ko daal la ko dalee ci Cheikh Tijaani radiyallahu taala anhu jaare ko ci Mouhamadou Ghali jaare ko ci Cheikh Omar Fouti radiyallahu taala anhu jaare ko ci maam Alfaahi Mayro jaare ko ci Seydi Haaji Malick sëñ Babacar Si Alaaji Abdou ak mbooleem mag ñi sëñ Si borom daar ak sëñ Cheikh Ahmed Tidiane ak sëñ Abdou Aziz Al Amin ñoo ñëpp ñu ko tungoomee yaakaar naa incha allah mbir mi dina gën a kawe mbir a dina fi gën a leer dina fi gën a yaatu yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin sëriñ bi ñu ngi lay sant di la gërëm ñun ñi nga xamante ne ñu ngi jàndoog appareil bi di ñu déglu kon ñun ñëpp ñoo ko déggandoo di sëriñ Sidi Ahmed si wax ibnu Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha jële ko ci magam yu tedd ya ak waajuram yu tedd ya ñun ñi nga xamante ne ñun ñooy njaboot nañu tënk ci loolu ndax kàddu kilifa njaboot programme la ko war a def te amuñu lu ëpp laylatul mawlidi nabi comme ni mu ko waxee maam Cheikh Hadj Ma utal ñu ko andil ñu ko tegal ñu ko andil ñu téere muy burd bàyyil ñu fi fukki fan kon ñun ñi nga xamante ne ñun ñoo nekk ci ndakaaru yëpp ak li ko wër ñu ngi joxante ñun ñëpp rendez-vous incha allah le 22 novembre ci place de l'obélisque ñun ñëpp jullee ci fi tàkkusaan bu ñu jullee tàkkusaan ba noppi ñu lal fa mbalaanum wasifa génneel Seyyid Cheikh Ahmed Tijani Chérif la mu am bu ñu noppee kilifa yi jël kàddu yi waxtaan moom mii mooy def waxtaan ba ci ndigalu xalifa bi incha allah yàlla na yàlla andi ko si jàmm bu ñu noppee ba julli timis ba noppi ñëpp ci place de l'Obélisque ñu àndandoo jàngandoo burdu boobu soobaat réew mi ci leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu moo nekk programme bi mi nga xamante ni moom mooy xew fii ci ndakaaru le 25 it ñin ñi nga xamante ni ñoo nekk ñu ñëpp ndakaaru ak ñu nekk diaspora bi ñun ñëpp ñu ñëwaat fii ci kër gi ci kër Cheikh Seydou Mouhamadul Moustapha Sy Jamil ndax ndakaaru kat ak seriñ Moustapha waaw loolu lañ Cheikh Abdoul Aziz doon wax nañu sëriñ Moustapha mooy cëru kër Seydi xaaj Malick ci biir Lebu yi kon ñun ñi nga xamante ne ñoo nekk ndakaaru incha allah vingt 22 ak le cinq yooyu sunu bés la le 25 boobu ci tàkkusaan ñun ñëpp ñuy àndandoo ñun ñëpp ñëw fii ci kër gi ñu àndandoo Cheikh Seydou Mouhamadou Mansour Sy Jamil ak rakkam ya mu am ak njaboot ga mu am yëpp ñu àndandoo fii incha allah def fi burdu kon loolu mooy programme bi nga xamante ni moom lañ si joxe li nga xamante ni nag mooy burdu yi tas na ci réew mi tas na si jaspora bi incha allah Europe am na dix burdu yu ñuy def Dakar euh, Sénégal fii am na lu mat soixante burdu yu ñu war a def fii ci wàllu réew mi loolu nag ñu ngi koy defee ci ndigalu xalifa bi mu jox ko COSCAS mu jox ko cellule décentralisation Pape Souleymane Paye jiite ko ñu ànd seeg ñun ñëpp di ko defandoo yàlla nañ si yàlla yóbbu ak jàmm kon ñu ngi leen di fàttali yéen ñëpp képp kuy njaboot képp kuy taalibe képp kuy daayira ak foo mënti nekk incha allah vingt 22 nañu daje ñu ñëpp ci place de l'Obélisque ci tàkkusaan def fa sunu farata la vingt 25 it ñu daje fii ci kër Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha fii ci Faas ñu àndoo def fa sunu farata loolu la ñu amoon ci ay kàddu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير Divawan TV, la lumière de la Tijania.